ma dem si roqee tey wala nana damay daal di ci bigi parce que xam naa ni yéen da ngeen ko namoon man itam man namoon ko euh, kon ñu dalal ko tout suite mu daal ñu yebbi lum ñu indil. Aïcha, Biggie, taille aujourd'hui le plateau est au masculin, mais on dirait que toi aussi ta <laughs> ngi noonu alors euh, donc lu vu sur dañuy daal di commencer ci li nga jot li ñu jot a ci internet bi. Mm. mu nekk loo xamante ni euh, dafa intriguer ñu bari parce que ku tudd Aïssatou euh, Slutan euh, Slut Slut and Sassy ci Twitter bi moom def am benn affaire boo xam ne nee na da koo intriguer sujet de la semaine les hommes faciles mu ne un homme facile. <laughs> C'est quelqu'un qui ne respecte pas sa personne. Il couche avec plusieurs femmes yeah, sans wow. penser à son avenir. ne se préserve pas pour sa future femme ni mm -hmm. pour l'honneur de ses enfants. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne société la histoire la bien-être la lépp moo tax euh, comme tombé na ci actualité de ci <laughs> Twitter bi ak li nga xamante ni moo jot a xew ci réew mi pourquoi ne pas en parler aujourd'hui dans Lu et Vu sur le net donc deux parties la bi mm-hmm. la ñuy njëkk tàmbalee muy Lu sur le net lii nag lañ jot a maanaam ci euh, gàttal mooy euh, góor ñi nga ñi dañoo daal di entre guillemets euh, woyof tànk daal ni koy waxee comme jigéen ñi woyof tubéy woyof tubéy waaw kay ni noonu koo xam ne respect gañoo yolom gañoo yolom gañoo mi ngi noonu. yolom <laughs> mu nekk koo xam ne respecté wul boppam respecté wul àndandoom ba pare day fu tooy mu daal di takk fu jigéen nekk mu ngi fa te moom du préserver wu pour jabaram bi nga xam ne moom lay am. Mhm. Euh, au future maanaam luy ñëw après donc Sénégal on a l'habitude d'entendre les gens dire que euh, tout le temps euh, femme bi boo koy takk dafa war a nekk koo xam ne dafay ànd ak ndawam. dañuy mhm. jaar ci mooy ci digg bi nag bëgguñu di ko laam-laame ni wala leneen ñi nga xam ne dañ lay dañuy dañuy seetaan ñu mën a xam li lii ñuy wax mhm. parce que aussi quoi qu'on puisse dire Sénégal dañuy jël jigéen ñi mettre leen au devant la scène di leen euh, wax mi ngi noonu alors que euh, tey jii bu ñu demee ba gis li nga xam ne mariage dafa am entre deux personnes on ne peut pas vérifier science waxagu ko comment on peut vérifier que ni ku góor ki bi muy seeyee ku jigéen ki il était intact alors que pour la femme vérifier ko yomb na am na ci ñoo xam ne aussi euh, elles son nées euh, comme ça amuñu loo xamante ne moom lañ indaale ci àddina muy ndaw mm-hmm. bu ñuy judd aussi loolu la donc xaw ma nag lan ngeen ci participer ci discussion bi luy sur le net man de bigi pour man ah gis nga des fois damay damay wax ma ne tonton Libaas fi dañuy fàtte ni bàkkaaru mooy. Mhm. ci jigéen beeg bu góor bi yëpp ñoom. ñoo yem mhm. ñoom dañoo ñu ci bëri dañoo jàpp ni. suite logique la nga am jabar mhm. yor sa maîtresse di dem di fa fanaani di fa mhm. nekk mhm. te pourtant bu ko jigéen defee ñoom ñaar ñoo yem bàkkaar de être xëy na dafa ñaaw ci déggin ko ci jigéen moom dafa am jëkkër am far mais nga am sa jabar di doxaan benn bàkkaar bi la te ni mu ñaawee ci ci ci ci bu jigéen bi noonu la ñaawee ci bu góor bi ñu ñoo dem nag ba banaliser ko ko loo xam ne dafa ñàkk fayda yaakaar ni lu normal la nga am nga am nga jabar war a yor say maîtresse de gauche à ñu ne déet beneen bi mooy oyof gaño bi ñuy wax hmm. góoru tey dañuy tàmm di fowee seen bopp mhm. mooy conséquence lu ñu fi doon waxtaane ñaari samedi yi passé mhm. dem ba am sa jabar mënalotoo ko dara mhm. wala nga dem ba lew li lay satisfaire sax dootul yombati lan ci lan ngay dugg ci ay affaire perversité di dugg ci ay gaam yoo xam ne ne tant que àggoo doo mën a yëg sa bopp ndax la la dangaa foo sa ndaw foo sa ndaw foo sa ndaw jigéen boo gis rek ah, mën xalaat nga la dara rek nga xalaat ci moom nu may fexe ba iri ko parce que moom moo fi am na ah, ñun dañuy wax les choses telles qu'elles sont cest jigéen ak góor ñoo bokkul àtt bi. mais lii jigéen du góor. dëgg nga parce que jigéen dafa dafa dafa dafa dafa doy waar. Mm-hmm. doom yaayam lay jël. Mm-hmm. quoi qu'on dise jigéen bu baax moo gën góor gu baax. lu wér. jigéen bu baaxee. lu wér góor dina dëng sax am na góor ñu bëri ñu am ci àdduna tey ji bu ñu génnee bu ñu génnee àdduna dem àjjana seen jabar leen fa mm-hmm. yóbbu. la ci ñu leen tarbiyo ñu leen taxawoo. beneen bi waxuma sax ci cadre am jëkkër am far je ci góor ñi rek naka nga célibataire ngay doxaan. jigéen doxaan bu dee góor la bu bari caat bi naan sa dragueur sa jankal sa jankal jantal góor la guerrier la bu dee jigéen ñu ne salope la ndax ngeen seen bopp bu dee jigéen ñu la bu amee ñaari doom avant mariage ñu ne kii moom waa ji te bu dee jigéen ñu ne ndeysaan ngi noonu góor ci la mbaadu <laughs> <laughs> da ngay day yokk de jour en jour. gis mm-hmm. mooy comme li na naa doon wax sànq tey bu fekkente ne tey da nga yor cigarette gannaaw suba da ngay lu ko gën a fort. gannaaw suba mm-hmm. nga yor alcool gannaaw suba boo moytul mm-hmm. ne peut-être côté euh, sexe la tamit noonu ngay fois da ngay bëgg di découvrir loo xamante ne moom moom moo lay gën a satisfaire. parce que da ngay ci point bi tey bu fekkente ne raay doyatu la. beneen yoon euh, genre faute doyatu la. da ngay gën a yokk di gën di yokk. moo tax ñu ne bul laal bul jege butina mais aussi juste pour juste pour dire que Asma gis nga góor da ngay am fulla am na ci góor ñoo xamante ne dañoo am fulla ba dañuy mel ni jigéen jigéen sax ñoo la ëpp fulla dañuy fiir ci seen bopp waaw ñoom lay wër waay gis nga góor da ngay te góor doo pasar bopp du gel bu jug ne la dama la nopp rek nga ne ko maa la raw da ngay def casting jigéen ni muy defee casting góor noon la war a mën a defee <laughs> casting pour xool xoolal ñi ñi ngi non mais c'est tey jii nii góor ñu bëri surtout mm. nag man damay indexé góoru média yi suñu góor ñi yi ndaxte tey jigéen yi soppe dañuy bëri Nana dara mm-hmm. te loolu foog nga ñëwaat ci plus amplement peut dans la société et c'est bien que Clean Biggi nga indi ko borom société fekkee ko tey mm-hmm. ndaxte euh, les hommes ils pensent que bon tirer leur coup et partir n'a pas d'impact alors que day wàññi seen góor a sur le hmm. temps le long terme et que góor tey pour ñu vérifier nii dangaa vierge am na benn euh, kii bu ma ko waxoon benn mag ñu doon waxtaan ci aada cosaan mu ne ma am na ci euh, ci yenn fànn kon góor ñi kilifa ku jigéen kii hmm. moom mooy dem ànd ak ku góor kii ñu ñu xam ko ñoom seen biir quoi hmm, peut-être euh, ma ci mën a jaar ci kàddu yi nii parce que du sama domaine <laughs> ba pare comme ni jigéen kii bàjjen gi di génnee sër bi ak yooyu di vérifier ku góor ki balaa muy jël ndaw si <laughs> euh, nijaayu euh, ku góor ki ak nijaayu ku ndaw si mën nañ dajaloo xam na kooku noonu dafa dafa bien nekk dëgg la dafa am na hmm. am na boo xam ne ne mag yi dañ ko daan xam hmm. ci góor bi nga xam ne ne hmm. mosuta xam jigéen waaw waaw peut xëy na lu ñu nekk ci télé moo tax doo mën a expliquer voilà ko bëgg a expliquer <laughs> mais méthode la boo xam ne ne gëstu nañ ko ba xam ne ni kat lii boo ko defee di nga xam ne ni ji góor bii kat wax dëgg yàlla dafa pisoo réew mi toll dafa pisoo mosul xam jigéen ak ci nu muy yëgee boppam sax dafay wutee waaye na xam nga lan laa doon retaan waa waa waa régi <laughs> mënoo leen bàyyi per mbay ngoone bi ngeen bëgg ma koy tudd fii satalaam gi ngeen bëgg ma tudd fii du ma si jaar en tout cas <laughs> donc euh, naa yëpp bigi yow la koy gëpp léegi moom kay man daw ma ci dara sax sama pap la père sama pap nga suñu xarit nga asma la tudd moo ko wax de eh, man waxuma dara déedéet waa régi ne satala dama ko tiktok per mbay ngoone dama ko tiktok TikTok. doo ko sama baat mais booboo ëpp fii sama TikTok yi. ñu naan ci buntu bi laa yem. Mm-hmm. defal ndànk. ci buntu bi laa yem ba ni mbaras dugg ci biir. mais mais Asma sànq yaa ngi wax góor ci média mais est xam nga ni ñoom euh, bon bu mënuma sax wax li ñu leen di taxé. ci ci ci ci ci bi mais ñun li li ñu leen di yàq ñun jigéen ñi heureusement yàq ñu leen ko ba pare te du ñoom kese ak góor ñi nga xam ne ñoo nekk ci salle de musculation yi. ñoom ñoom ñaar ñooñu moom que tu sais que benn série buy daw ci télé bi entre guillemets infidèle hmm. il paraît que am na ci góor ñoo xam ne ñu bari am nañ seen jabar nii dañ leen tere salle de sport yi parce que li fa liñ fa gis ñoom hmm. nee nañ musuñu xam ne existé na et puis jigéen ñi man tamit man je ma gis ku ci takk ma ngis ku bëgg a góor toog ko ba salle sport koo ko ko mais est-ce que xam nga ni biir salle de sport salle de sport ko charmé parce que mais baabu baax pour gisanteeg waay bi. mais nag Nana Aidara tey jii nii aujourd'hui il faudrait qu'on parle uh-huh. il faut que ñun jigéen ñi. Euh, góor mu bañ ñu jaral. Hmm. Euh, euh, doydil suñu bopp. man je pense que doxaan góor bu lay labat dafay neex muy jafe. dafa war a di jafe euh, et que parce que góor ñi tamit on va on dire que dañoo oyof sër mais quand tu vois aujourd'hui surtout dans le cas de góoru média hmm. jigéen ñi ñoo leen di song te amuñu ci benn amuñu ci benn ngor amuñu ci ngor waaw muñ doo nga fi nekk ah, asma non asma dama jot message bu important mhm. ki nee na maamam ba muy sukuraat sukuraat bi metti xam nga dafa sukuraat yoo xam des fois day jafe mhm. dañoo xool ci famille bi góor bi nga xam ne ne xamul góor ñu ñëw ne ko raayal kanam bi xamul jigéen astafurlaa ñu ñëw mm-hmm. ne ko raayal kanam bi nee na moom la ñu tànnoon mu dem raay kanamu maam ji maam ji sedd ci saa si donc solo sus tamit ndaw ci góor mi ngi noonu góor dafay denc sa bopp sa gaño li ci war a génn da ngay denc sa oh, bopp sa gaño solo su ah. rek mbir durus <laughs> dina rus <laughs> ay bigi bàyyi tooñ ay ca en tout góor ñi war nañu gën nag ah, mm. fiir ci seen bopp man dégg naa mos naa dégg góor boo xamante lay naan man su ma nekkoon jigéen ah, naa damay gën <laughs> tonton Thiam moom ci bureau bi lay toog bu <laughs> góor doon ëmb kon seen TV nañ ba te ba tax <laughs> Aïcha Aïcha en tout cas. te mooy gis lu ne mu ngi ci ah. buntu bi taxaw. en tout cas boobu du ma fi bëri ay xarit yu góor. <laughs> Aïcha bi gi ñu woyal ba tey rek. non man daal balaa ñuy euh, daal di def li nga xam ne moo di tëj mais góor ci boppam euh, il faut que nga inciter dugal sa bopp yenn valeurs yi nga xamante ni. pourquoi pas mm-hmm. yow yaa ngi inciter les femmes à ñu restent intactes. Mm-hmm. te yow yaay daaj di ñu intact ñi nga xam ne ñoom nee yow da bëgg jigéen bu réglé bëgg ko mhm. takk mhm. te dajji nga beneen jigéen ci côté bi kooku war a sëy keneen bu waree sëy nga yàq deram ne kii xamante naa ak moom tëddante naa mhm. ak moom da ngay accuser nit da caga alors que bi yaa ngi def lu raw li muy def yéen ñaara yam te xoolal takk bu jotee dañuy bëgg takk koo xamante ni xamul dara waaw moo tax mbetteel lañ ci am après ay tànkam toog seen biir kër kon nag ñun tamit dañoo bëgg góor boo xam dafa téye bopp. léegi xam nga lu koy indi yow góor bi xam nga ñëpp mos nga ñëpp taay bu ne gazelle béy. <laughs> fuuf nga mos ba pare bëgg takk ku intact kooku noonu boo fekkee yow impuissant nga moom mu ñëw xam ni que kii dara dëgëru fi day dem xooli sa morom ah, daal di koy euh, ñam moom it ñam ci naaru góor yeeg euh, béy yeeg mbaam yeeg ñëpp ku ne ma xool ko yàlla nañ ci yàlla <laughs> mu sa bëri ci góor moom teel a retraité da nekk góor teel a retraité moo tax da leen di gaañ parce que secondaire la. ay nekk góor. wax sa xarit ne ko tu es bu jàddee yàq sa der. waxal la nekk yow bokkoo ak ñeneen góor ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci àddina donc yeneen ci yàlla musal daal en tout cas si ñaareelum ponk mi deuxième euh, <laughs> chose boo xam ne on a vu ça sur le net li mën a gaaj la nam li mën la nam bi ngi ay waxam nii la toll <laughs> ni man rek am deuxième chose boo xamante ni ku nekk ñu toog ci plateau bi la plupart jaar nañ ci mu daal di def nekk délibération ou baccalauréat vidéo bi nag dañ ko gis ci internet bi ça ne s'est pas passé au Sénégal mais ça s'est passé passé en Abidjan fële ca Côte d'Ivoire ñoo xamante ni actuellement euh, dañoo daal di indi euh, seen ay euh, résultat résultat donc ñoom ni leen ko joxee du SMS du appel regardez en tout cas vidéo bi laata muy ñëw man j'aime bien le suspense bi gi ñun ouais. man maa ngi gis benn image boo xamante ni hmm. dañoo duggal ndaw si di dem ñu sàcc hmm. téléphone am comme Odiane muy def hmm. dessin la ñu ne ñu sàcc téléphone mu ne SMS baccalauréat mu ne ko am nga bac kon nag c'est c'est c'est ironique mais aujourd'hui ça nous rappelle que euh, ñoom ils ont pas pris en compte mm-hmm. cas vol et que répercussion yi ci am après c'est vraiment problématique parce que ku mm-hmm. mm-hmm. amul bac day naan délibération la ñu xam day naan jotuma SMS bi jotuma SMS bi wóoruma ndax am naa wala aw promotion de crédit cent pour cent deux cent pour cent yow doo jot SMS bi man maa koy jot ak ñeneen ni famille majeure partie duñ ko jot donc pour dire que tey kenn day jóg ne promo am na nga ne ah bon promo am na ah dem recharger nga am promo alors donc loolu kese rek loo xam ne message promotion nga xam ne amul benn xaalis boo xam ne rek mhm. tey ji mhm. kooku dina ko ci frais mhm. waxuma la ak message boo xam ne dafa important avenir u nit mën na cee basculer à jamais mën na cee yéeg à jamais mën na cee baax à jamais ñu xoolaat bu baax yi ñuy def bu njëkkaan ko sax waaye bu njëkkaan journal ndar ndar xool journal xoolal ndar Golbert bi rajo Golbert dégg naa dañ doon autoproclamer résultat rajo bi kaaraange ku mhm. ku nekk jël sa nopp teg ko ci rajo bi di xaar dégg sa tur mu nekk loo xamante ni peut être sax euh, lii lu bees la mhm. lu bees la te ñëpp xam nañ Sénégal lu bees moom pour mhm. organisation bi mat day des son day des day des moom man élèves moom personnellement dama leen yërëm peut être nag ki ma kumpa bagam fan la mujj ca bëgg naa nit ñi wax ma fan lay mujj mooy ki doon wax euh, na nu mu tuddati sax xam nga ki may wax ki taxoon ah, masque bi di ko doon laaj naan kooku kooku la àddina yëpp di xaar. moom laay xaar mooy élève mooy borom faute yu bëri yi. nu mu tuddati non non kooku il dit carrément nu mu tuddati. Euh, on est là on <laughs> attend euh, les professeurs démarrer nu mu tuddati. Ah, gis ko ci internet bi. kooku la àddina yëpp di xaar. mais mais aujourd'hui c'est vrai que lire bi ci journal bi ñun ñun dañuy tàmmal ay discours à la nation. Mhm. Euh, discours euh, point Covid. yooyu noonu nañuy faratal jàngale mi ak jàng mi xale yi mënuñ leen téye. jàngaloo leen ci nawet gi. Mhm. ñuy xuus di def examen ba pare ñu leen di yeb ab tollu yebel boo xamante ni ñaan SMS lañ lay yónnee. déjà SMS du ministère de la santé c'est pas tout le monde qui les qui reçoit. d'accord donc <laughs> voilà l'opérateur peut avoir des dysfonctionnements techniques prenez le journal c'est c'est c'est institutionnel mhm. <laughs> donc ñu jël journal joxe liste bi daa di eh, def li nga xamante ni moom moo di eh, appel ça va prendre du temps mais nañ ko dispatcher sur quelques centre la ñu am ñaata centre d'examen la ñu am loolu pour journal sax day compliqué dañoo tiré fay jox ko chef de quartier bokk wala xale yi duñ ko gëm ah. maa la ko wax état d'esprit sénégalais ñii jiite dañ ko war a xam gis nga déglu. Mhm. moo bokk ak appel ba. Mhm. rassemblement lañ ci bañ. Mhm. nañ ko def journal. parce que voilà parce que bu fekkee ni bu fekkee ko jël. nga def ko SMS wala nga tiiree ko feuille. nit ki day am lu muy revendiquer à chaque fois te ñoom war nañoo bañ lool. bi dafa mel ni vidéo bi pare na ñu seetaan ko. ay ci ñu xool ko tey ngeen di ree di ree di ree baree jeex. 107 267 levés, ça 267 là, c'est Dieu. Depuis il venait à composer la veille, me disait que non, pas doucement, qu'ils ont appelé. Non, maman, il a rien, c'est Dieu. 267 points, c'est pas quelque chose, c'est ma tête. Bon, avec le du Covid, bon, je pensais, je pensais réellement avoir mon bac. Parce que bon, après la compo, il y a certaines matières que j'ai vu que j'ai difficulté, mais avec la foi de Dieu, je pense que apparemment, C'est jour, hein. j'ai eu mon bac. Tu peux On a parlé le bac à la maison. Et puis avec des grands au quartier, on de. Vraiment, ça a déjà bigi ki floqué yere bi comme ni nga ko waxee <laughs> bu fekkee amul woon bac nu muy def. mais ki floqué yére bi gën a choqué parce que moom disons que euh, moom mu ñëw par exemple di jël si ay résultats am floqué yére bi ne bac validé te amul nan lay def boobu réaction donc imaginez-vous donc pour dire que ñoom euh, waa Abidjan moom xam naa ils sont ils sont dans un autre monde euh, njëkk jox résultat bi nag du kenn ku dul Nana Aidara mu ngi noonu moom dañ ko ne am nga bac mu daal di fi taxu daw ki ci topp ni amee Diop borom ñaari jabar yi ma yoole la fii ci tele bi mi ngi noonu. donc euh, affaire yi daal. Mhm. waaw mu dem topp ab mbiri mhm. topp ko. Mhm. virus la virus société rek fu ma dem non moom Covid bee dew ma nag. ak masque waa Covid bi waaw débat la koy def man laa bëgg sama biir. dama ne man euh, loolu ñaari jabar yi. ñaari jabar yi <laughs> moom daal gaa yi nga koy tuumaal il faut que mu ñëw fii faram fàcce ko fi mu ujje nee nañu moom dafa def kii kujje te mu wujje mosu ko fi man ba ma tey ah, ñëw ma ne ndax gisoo ko mu dem wujje kii mu dem indi na fi te mu wujje kay <laughs> ah, mais nag nana moom Mouhamed Diop li ma si jaaxal mooy indi na fi donc nul n'en ignore livret familial livret de mm-hmm. famille indi polygamie monogamie l'importance de la signature loolu la ñëpp di boobu mi ngi gas. <laughs> ndax ñu doon préparé de sax léegi li ngeen di def du savoir vivre bàyyi leen ba borom ñëw toog. waaw non man dafa mu am solo waaye ba tey rek bigi <laughs> euh, ñi nga xamante ni euh, dañuy def baccalauréat hmm. euh, je pense que war nañ leen gën a mën a wor ma ba tax ne nag joie bi ci nekk xam naa ren duñ ko am ndax képp ku amoon bac rek. Hmm. buñ la déli délibéré da ngay yuuxu def ni nana sifflet bi ngay. <laughs> man maa gën a garaaw bi am naa